ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa Tapha Gueye ci Modou Lo Ama Baldé en prison le combat n'aura ubbi leen seeni nopp di ma déglu bu baax te ubbi seeni gët tant que Luc ngi ci prison bi combat bi du am bu dee Ama Baldé ak Modou may dégg nañ jëfe sama ndigal ku ci am xaalis booy def ci combat bi denc ko ku ci jël sa koppar di ko waajee ka yaa ngi yàq sa xaalis je ne veux pas qu'il nañu lemaat seeni billet ba mu Modou Lo ñu loolu mënul nekk te amul kenn ku koy def nekk prison ba noppi di dépasser ay millions ci événement loolee ku ko def sa xel booyee boo nga rocciwaat ko ca ba mu set li gàttal wax ji mooy bu fekkee Luc Nicolaï libre na ci fin mois de janvier bi combat combat waaye bu amul liberté ba ñu dugg ci mois de février loolee mooy combat ba dootul am fa mu jeexalee wax ja mooy s'il pas de libération il n'y pas de combat rax ca dolli na Luc Nicolaï moom ci boppam bëggoon na combat Boy Niang ak Balla Gaye moom laataa dem prison waxoon na ma ne wax na ak Balla Gaye ba noppi Boy Niang moo ci desoon te maa waroon wax ak Dégol ba ma waxee ak jox na ma accord bés bañ ko arrêté moom Luc Nicolaï ca Siteu ak Papa Sow opération communication ba tey lay tàmbali ca hôtel teeru bi waaye jàkkaarloo bu njëkk boobu képp ku yëngu ci làmb danga fa teew ba mu mooy waa CNG la waral ñàkk teewaayu CNG mooy combat ba régularisé guñ ko combat bu nekkut en règle CNG amul lu mu fay def beneen ba mooy rëg-rëg ak stage ba mu war amal ca Bruxelles moom rëg-rëg ma dellu États-Unis janvier bii ñu génn ci préparation combat MMA digganteem ak Ivan Romanov le avril ba fay fekk Bébé Bismi ma Ada Fass daan samedi ba la génn moom Bébé Bismi ci journal bi wax nay erreuram yi ko ñàkkuloo combat bi rax ca dolli na fekk une semaine sama combat dana taxawaat bu dee Aline Sèye Junior ma Tapha Mbeur daan par recours dafa contesté verdict ku CNG ba la mu xamle mooy ñu jox ko victoire ak ñu ñàkk koo jox sama yoon nekku ca en tout ba may génn ca làmb ja la arbitre jox ndam leneen li des weesu naa ko sama ginnaaw damay xool sama avenir keneen ko xool avenir ak la mu war a gañe ci làmb mooy Serigne Ndiaye 2 bu faas lem nay bagaasam diri ay valise dem dëkki kër Tafa Gueye la mu bëgg mooy wéet ak Tafa Gueye renforcer formation technique ak tactique moom Serigne Ndiaye 2 bëgg a dooni champion te écurie Fass moo tax mu ne ñàpp ci kaw Tafa